internet yu seen série tv maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di rafet lu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak sunu ay programme tey seen rubrique décortique série impuissant épisode 23 la leen àndeel ñu dool ko ak séquence bu njëkk bi ñu gis ni nag ki nga xam ni moo di Simone euh, dafa mer ba futtu jamono ji mu mel ni infidélité ki nga xam ni moo di Ngom Diop di boroom këram nekk na loo xam ni lu ko bett la waaye itam lu ko euh, metti la comme lu ñuy wax rek lu la bett mën la loolu moom moo ko daal ndax moom Simone jàppoon na ni jëkkër bu responsable la am jëkkër ju baax waaye au contraire jëkkëram dafa nekkoon rek di taxawaalu ci xale yu jigéen ñi waaye gis nañu ni moom mi nga xam ni moo di Simone affaire sentiment lay wax affaire mbëggeel affaire sëy waaye ki nga xam ni moo di papaam nga xam ni dafa ñëw di ko kalaame ak Ngom Diop moom bëggul dégg divorce benn yoon ndax moom ay intérêt rek lay daal di sàmm mu mel ni kon politique bi ñoom ñëpp ñoom ñoo daal di yem ku ci nekk rek sa intérêt ngay euh, wëyal li taxoon rek mu dugal euh, mu nangu Ngom Diop daal di sëy ak Simone ba tax Ngom Diop tey mu nekk ministre loolu lépp ci loxom la jaar te dara nag waralu ko lu dul rek bëgg doomam nekk ci condition yu baax ndax xam na ni lépp lu doomam am rek ci moom lay dellu si waat ba tax na bëggul euh, doomam dal di génn ci sëy boobu donte nag jëkkëram moom moo ko tooñ waaye nag amul sax lu mu ci euh, négocier mu mel ni kon parfois nit di bëgg euh, nekk rek am papa joo ni borom alal lay doon wala borom daraja waaye nag parfois itam ñoom borom alal yi borom daraja yi dañuy doxalee noo xam ni seen doom yi ñu leen si xalaat ndax à chaque fois rek ñoom lu leen di yokkal daraja boobu ak luy yokk seen alal boobu la ñuy xool waaye xoolu ñu leneen ñu jàll ci Elimane Elimane nag moom gis nañu ni rek mujjeewul faatu ci dóor yi nga xam ni vie dóoroon na ko ko waaye loolu itam découragé wu ko benn yoon ndax ñëwaan na rek daal di seet si ma jigéen te xam na ni lool la ko vie di aaye mu mel ni kon moom Elimane nekkul koo xam ni rek day bàyyee mu di waxtaanaat ak ma jigéen waaye mel na ni rek waxtaan bi mu jegul fu neex ndax ma jigéen dafa mer ba futtu bi nga xamee ni Elimane commencé na nag di wax ci paaseem euh, mu mel ni ma jigéen passé bu métti bi nga xam ni dund na ko tax na nag bugul benn yoon kenn di ci wax wala kenn nag di lëmbaatu ci euh, viwam euh, mu mel ni kon ki nga xam ni moo di Elimane tey fa mu laal baaxut lool nag kontaan la bu baax a baax vie ndax moom bu sañoon rek képp kuy jege ma jigéen da ngay am ak moom problème ndax moom bugul kenn jege ma jigéen ku dul moom ñu jàll ci Fodé Sow moom nag ñëw na ci euh, ci doyen Joxaane di waxtaan ak moom euh, foofu nag mu gis ak mami mu mel ni mami am na chance ndax Fodé Sow mi nga xam ni moom la fekkoon ci euh, boîte de nuit ba doon wax ak moom Fodé Sow di ko ñàkkal kersa di ko wan ne man duma genre yooyu tey mu dem dox ba Fodé Sow daal di dugg ci biir këram mu mel ni loolu nag dina ko yombalal bu baax a baax li nga xam ni bëggoon na ko te doyen Joxaane itam gis nañu ni mu ngi jéem a ñoom ñaar ngir rek ñu daal baax ne Fodé euh, baax na pour doomam ba tax nag mu bëgg leen rapproché ñu waxtaan euh, ñoom ñaar mu mel ni nag réussir na ndax ñoom ñaar mujjee nañoo rek daal di waxtaan ba euh, juboo ñu jàll ci monsieur le maire monsieur le maire nag moom gis nañu ni changé wul benn yoon comme toujours rek jigéen bo rafet wala nag jigéen boo xam ni jekk na lay bañ a gis ba tax na nag mu daal di convoqué ki nga xam ne moo di ma jigéen fexe nag ki nga xam ni moo di ne daal daal di dem mu mel ni kon moom monsieur le te muy jigéen bu mu gis rek mu yaakaar ne pour moom la te it nag bu gisee lu bees rek da koy jaral lu nekk ñu jàll ci Papaye Simon moom nag dem na daal di attaqué Ngom Diop ndax nag delloo na ko place am xamalaat ko bu baax a baax mooy kan waaye itam xamalaat ko bu baax a baax fi nga xam ni fa la war a teg tànkam loolu lépp nag ngir euh, seen ay euh, euh, intérêt politique mu mel ni ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoo yem ay politicien lañ lu ñu gis rek mooy seen intérêt te it nag ëllëg li nga xam ni Ngom Diop mën na koo doon ci dëkk bi ba na nag mu ñëwaat waat di ko delloo si waat di ko xamal bu baax a baax ndax ku ne xam na ni eh, nit boo bëggee nekk kilifa ëllëg am na yoo xam ne danga ko war a jombale sa bopp ndax dara gën te ñaaw nga dem ba nekk président de la république ñu naan moo fi defoon lu ñaaw li wala moo fi defoon lu ñaawlee eh, ñu jeexal ak ma jigéen ma jigéen nag moom gis nañu ni maire bi nga xam ni maire woon na ko ki nga xam ni moo di eh, monsieur le maire di monsieur Ndiaye nga xam ni moom moo ko tooñoon bi mu nekkee ci village ba ba noppi nag daal di koy abandonné amoon ba tey rek moom la am ba tax na nag mu ñëw daal di euh, déverser boobu yëpp nga xam ni moo di euh, monsieur le maire daal di koy jamate ay euh, paaka mu mel ni nag ki nga xam ni moo di ma jigéen topp na xolam ba def loo xam ni amaana dina ko regretter ëllëg ndax ku ne xam na ni nit ak lu mu la munti def waroo fajal sa bopp ndax yoon daf fi am pour faj waaye itam rey nekk na loo xam ne lu ëpp la kenn du fajee ak rey mu mel ni kon nit boo meree war nga jéem a contrôler wu waaye boo toppee sa xol lekk di nga def musiba moom dal ma jigéen ndax topp xolam ak eh, lu ñaaw li nga xam ni moom la ko monsieur Ndiaye doon def eh, ba nga xam ni viom yëpp monsieur Ndiaye mën naa ni moom moo ko yàq tey jii nag loolu moom moo tax rek en eh, boobu mu amoon mu daal di koy xëpp yëpp ci kawam waaye nag nekk na ak boo xam ni mun na koo regretter kon nit loo mer-mer war nga rek ànd ak sa fois te xam ni rek ëllëg lu jar a la te mën ngaa def loo xam ni rek da nga koy regretter kon mbokk internautes yi fii la ñuy ci seen série impuissant épisode bi laata boobu woy leen di abonné ci seen série TV leen fàtte bës ci cloche notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel jërë jëf